abonneel gaaw ci sa chaîne bii di ASG production gi jot bépp xibaar bu bàyyi ko ci yoonu Eh, dafa am luma ma wax ni len euh nitu yalla loko ko bo boo fan ding ko def. so amé moyen jarul ngay yëkkati xadu bër diko jox Serigne oumar Sall wala Serigne Massamba Ndiaye demal nga gasten billahi la ilaha ghayruhu ilaaha gayruhu mu ëpp tuyaaba ci kanamu yalla fop loole ñu ko doon tuumaal ña ko doon def yàlla dox na ba ma daje ak ñoom di leen ñaanu ko wàll ci diine di leen ñaanu ko wàll ci diine di leen ñaanu ko wàll ci diine allahu akbar bay ko ci diine képp koo xam ne daal cey séq nañ ak cofeel la ilaha illallah oh takbir nit ñi waruñu woon a bàyyi ba kàddoom yëgg fii kon nag euh, la nga doon tuumal waaja def nga lu ko gën a bon ndaxte procès bii nga tëral néew naa am procès bi àgg te fenn amu ci sa sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer